jaajëf euh, jërëjëf Aliou Ba euh, jaajëf Yacine Pouy euh, passe partout maa ngi lay kontaane bu baax auditeur ak internet yi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel suñu rajo RFM 94 point 0 point 0 maa ngi leen di béggee yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye Bane maa ngi lay siyaar maa ngi lay ziar sama waa ji di la di la béggee di ziar Ndiaye di ziar auditeurs yi ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkk ci ñoom hmm. foo ay mënti ne ci réew mi ak ñabet nekk bitim réew Modou Modou yeeg ñëpp ñu ngi leen ñaanal jàmm sénégalais ne bitim réew Gambien yeeg waa Mauritanie ñëpp ñu ngi leen ñaanal jàmm yàlla muy jàll borom jàmm yàlla nañu yàlla def defal jàmm roof ñu jàmm ji di ñu ko roof du ñu ko roof ba jàmm soxla ñu ku ne amin yàlla na nga ko am ku niwul amin yàlla ko yàlla force yàlla nañu yàlla may jàmm oui Ndiaye siyaar naa la. maa ngi lay delloo siyaara ba. maa ngi laal di laalaat di ndax man mi dafa egsiwul ci man ni ma egsi. ah maa ngi jégalu de. déedéet amul mm. problème am jàmm. maa ngi sant baax a baax jaajëf jaajëf. Euh, léegi baax na. maa ngi cool. d'accord ah, baax na. maa ngi baax maa ngi nuyu inspecteur. waaw ñu ngi lay jaar maa ngi maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp jàmm. Ah, di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ak sutura di nuyu sama partenaires yi rek suñu partenaires yi sax soo ma ko laay wax soo ma ko permettre Aba mm-hmm. mm-hmm. doore ak ñi nga xamante ne ji ñoo di établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère di sponsor yu am doole am maanaam euh, ci xalaas waaye it di euh, ñi nga xamante ne ji li ñuy indil waa Sénégal ci ay produits yu baax Euh, ñoo fi indi gaamu vite fait di gaam bi nga xamante ne ji am na frotté bu abaax lool ci yaram buy metti frotté bu baax lool ci muscle yoo bëgg delluwaat place am frotté bu baax lool ci ku bëgg jëlaat forme am frotté vite fait ci gaamu vite fait la bokk am na pommade am na pompe am tube euh, yamul foofu ne am na pâte dentifrice vite fait nga xamante ne ji boo bëggee ba ñu weex boo bëggee ba ñu wér boo bëggee xeetu bu neex del jëfandikoo pâte dentifrice vite fait amna brosse à dents bu muy andal souple dur wala médium lepp ci gam bi la gaamu vite fait amna ci ray bant bu xeeñ neex ba paré dila la dàqal ay yoo yamu ci am ben pompe bo xamante ji euh, mo mën ci ay yoo mën ci ay mbóot mën ci ay weñ établissement wa kër Serigne Touba fallé frère yi indi gaamu vite fait ñu mëna joko ak ñom ci 77 441 06 38 77 555 11 11 voilà, 77 696 34 67 beneen partenaire ci khalas Optique Vision Plus Sénégal ndanani lunettes, lunette filles Sénégal ak lunettes lunette bo lunettes gamu lunette bo soxla accessoire lunette bo soxla bo Optique Vision Plus Sénégal am ko ay monture marque originale lu ci mel Mirado Anna Ickman euh, avec transition avec euh, traitement transition dernière génération optique Vision Plus Sénégal ñi Dakar showroom bi Lenek presse la place Bonek Mbour Sali Carrefour am Benen place Bonek, nekk euh, fële nous Djoko Agwa Optique Vision Plus Sénégal original 77 479 63 38 33 876 61 03 wala 77 136 11 63. Wave mi ñëw ngir noppal waa Sénégal ñoom it mm-hmm. di partenaire ci xalaas ak Wave sa xaalis yaay borom loolu la ñuy wax ñu ne ndimbal jaboot la wéef di liggéey ngir kenn ku nekk jot ci ay services financiers yu am solo yi foo mën a nekk ak nu sax am mën di toll mi ngi xel di bàyyi xel également ci seen eh, oyofal dundinu askan wi tax na lépp lu jëm ci dépôt wala retrait maanaam dugal wala génnee xaalis boo def ak wéef moo xam say xarit say am di jàmm say mbokk lu ci mën di doon wala urgence bu taxaw lépp ci nu mu gën a ba noppi ànd ak euh, sécurité ak taw ci ñi nga xamante ne ñoo koy jëfandikoo oyofal bi bu téléphone bu am application bu ko a téléchargé Wave dina la baaxee carte boo xamante ne ji lépp loo soxla ci service yu Wave yi rek di ko mën nga ko cee am numéro service commercial bi 200 600 la 200 600 numéro boobu rek la Wave amee moom ngeen ko mën a jotee 7 jours sur 7 moom ngeen moom la leen di woowet bu leen soxlaa mhm. mais beneen numéro bu ngeen jot di leen wax waxi Wave moytu leen ko ndax euh, Wave yónniwu leen am na solo jaajëf baan xalaasu la. ajjuma la ñuy yeggali wala da ngay. xalaasu ubbi xalaasu bees taal. non xalaasu ajjuma bi la ñuy. la ñuy yeggali. mu ngi mel ni ku fi nekkoon ajjuma. moom laa lay wax nii loolu tax mun ñuy sori ah. waaw. Euh, fële am na quartier Daaru Miset ma nga Kër Massar quartier Daaru Miset. Mhm. am na fa benn potu làmp boo xamante ne jii mhm. euh, dafa dafa dëng dafa wenk. Mhm. potu lampe bi léegi mu daanu. am na fii lu courant yu bari yoo xamante ne ji askan wi nee nañu ci potu lampe boobu la ñu jokku mhm. quartier Daaru Miset Kër Massar mhm. population bi dañu tiit jamono ci mhm. nee nañu heure bu ñu wootee Senelec li ñu leen di wax mooy service dépendance dina ñëw waaye boobu ba léegi duñu leen gis déjà nawet bii di ñëw potu lampe ba weng na Hmm. bari na ay fil yoo xam ne fa lañ ko branché. Hmm. ñoom seen jëmmi bopp dañoo tiit. Hmm. leen war nag def nañ ko mooy gis nañ lu ñu xamul wootee nañu. nañ leen dimbali muy waa Sénélec bu dee ñoo ko war a lijjanti quartier Daaru Miset ba nekk. Kër Massar. population bi tiit nañu de. tiit nañu nañ leen dimbale bu baax waay jaajëf yow ne soo demee nga ni wàllu ndoy baan nee na yàlla na ko yàlla defal jàmm. te combat bi mu ne ne bu mu bu jóg. bu mu ci ku ko wax lu mu ko na ko porter na dem ba jeex. dëkk bi lu fi xew dafa yomb. Ah, trop c'est trop nag quoi. dafa yomb. ku am yaay soxna ami doom tout le temps voilà bu xëyee di weddi tamit euh, trop waaw mm, mm, mm. c'est ça acharnement am na ci kam voilà am na yoo xam ne dafa ëpp dëkk boo xam ne tey oto bu rafet soo ko yoree ñu ni franc-maçon ko soo yomb na daal en li ñu wax ci éthique yi ñoom journalistes yi ñoom njaay koy wax éthique ak neex na moo wax ni site en nga wala loo mënti doon article boo bind balaa nga ci teg kenn bu dee article bu góor la teg sa baay ba noppi bu dee daa jàll nga soog ko jàllale bu dee bu jigéen la base yi bariwul ci journal sites yi site ah. internet yi bariwul ay journaliste ci ay doomi réew mi bàyyi xel ni am nañu ndey am nañu bàyyi am nañu muy ñun ñëpp nag ñun ñëpp parfois ñu acharné wu sa kaw ba yow mën nga ko yow attan nga ko mais sa famille sa soxna say doom sa yaay attanuñu loolu quand même ñu bàyyi xel ci nit ñi tooñ daal moo baaxul as góor doo ko topp boobu ba tey muy weddi nga topp ko muy weddi bu keneen bu fekkee keneen sax moo def dara nga jël ko sippi ko ko loolu c'est trop man de li ma ciy wax mooy ak lu mënoon di xew. Hmm. mënoon ñoo bàyyi bokk au moins ba weer yi bàyyam dellu deewee dellu si. Ah, dafa métti moins au moins dafa métti euh, mu defam mu bañ a def. Hmm. xaw ma. Hmm. musikam mu mu mu jub toppatoo ma ko. mais li ma la mën ax daal mooy nit ku nekk. dafa am koo koy ruse. waroon ñoo bàyyi au moins. ba weer yi bàyyam génne woon àdduna. dellu si waat sax. nit ba xaw a xaw a miis ci xolam. après yeneen yeneen yeneen yu ñuy wax wala yu ñu koy bindal baay yu muy weddi. tooñ daal bu baax tooñ. mais bàyyi wu ñu woon bàyyam nag bi bàyyam day nekk en vie tamit bàyyi ñu nit ku ne dafa am. loo tooñ tooñ moo baaxul Ndiaye. ba pare Ndiaye moom doon jot parce que amoon na ay articles yu ñu doon bind que ni dafa def affaire am boolewu ci site internet yeeg euh, kii bi bu ñu paree lu mu dégg rek nga xam ne ñun la. Ah loolu ah, ah, si affecté nañ ko ci loolu. avant concert am. avec li acharnement la li def loolu tooñ la site yi yenn site yi ah bon amone ay message yu doon rëcc di guen def na yeufam bolé wuñu ci bu paré dina xamni ni lépp dëgg la avertiroon nañ ko mais quand même fiñu yegg mo sori mënoon nañ ko tooñ ci lenen budé mom la sa personne mom lijjantiwu leen mais dem ba laal ay famille wam laal ay domam parce que nit ko fi ah. laal euh, aveniram am laal doomam wala nga laal mo la yoy tamit hmm. c'est c'est c'est trop ba paré ñiy commenter duñu comprendre parfois ay règlement de compte amna ci dé tooñ dal hmm. tooñ ah, si tooñ Sénégal moom dafa neex waye comme yegg na ci yoon hmm. da ngay xol njaay hmm. xibaar daal soo koy génn na wér te wóor tooñ baaxul xibaar yu wér te wóor loolu wóorul bu ca wax loo xamul dara neel xaw ma ca dara su la wéeree wóoree te leer ngay xibaar ngay doon jox joxkatu xibaar joxe ko mu wér mu doon xibaar wér te wóor nga xam ne kenn du ko mën a weddi waaye nag topp jaay ba mu jaay lii abaa lii ndoy ba lii ba kañ waaye dañ naan promotion lii ngay def promotion la ngay def yow mi ñu koy jiiñ ne yaa koy def nangu woo wax seen tur noo defee seen promotion te heure bu ñu la ko waxee nga weddi ko ba pare ñi nga xam ne ñooy def promotion bi mooy ñi nga xam ne ñun drapeau bi mosuñu koo xam ñun ay lobby yooyu mus ñu ko ñun yëpp xam nañ ko ci presse bi lañ ko xamee. ah, ah donc quand même il faut. ñu arrêté loolu suñu ay doom tox di xool nga leen di wan drapeau leen wax seen i tur leen wax ñi ñoo ci bokk fii leen ci bokkee nii leen ci mais communication boobu ngay doxal xale yi di ko yëg yow yaa def promotion bi quand même ki ñu koy jiiñ nanguwul wax seen tur nangu weddi na ni bokk ci tey mais nit ñu koy gëmee luñ ñu koy gëmee wax a ah, doxoo ba fekk ko ci acte mu wax weddi ne bokkuma ci lii ngeen ni kon. lii la nga xam xamu ko ci am na tooñ quand même. la nga ca xam xamu ko ci. am na tooñ Njaay. Mhm. ñu doxantuwaat lii bi. Ndiaye dafa mel ni da ngaa demoon Libi. Faramaren yëngu na yaa fi àllu nii. waaw <laughs> ah, man moom man moom man ak ku mënti doon a ah, man ku mënti doon acharnement bi dafa ëpp. Mm, mm. ci côté boobu dafa ëpp trop trop trop trop trop wax dëgg yàlla. ku ci nekk dangay ngay protéger sa xarit sa bopp wala dara man moom man moom voilà man moom. balaa ngay bind dara ci nit am na seen kër wala xew na fa danga koy suturaal nëbbal ko mais ku ci. doy na waar. man moom amul amul xarit amul nii man moom xibaar bu wér te wóor daal loolu wóorul bu ko wax man foofu laa taxaw dëgg la man de xaw ma li xew may xam naa daal waaw nañ ko rusé bàyyi génn at tooñ daal baaxul <laughs> loolu daal laa leen après Ndiaye koy jiiñ muy weddi waaw kooku xamal ni loo ko jiiñaat mën nga koo tooñ Ndiaye oui ñu doxantuwaat li bi ndaw sax mm. dégg naa waaw nee na dem na ba mu waree rëcc benn xaja ko mel ni bu ko feeñee xaj bi daal moo de ba am fu muy fu muy gas mu dem ubbi foofu gis fay caabi waaye ba mu ubbi fekk na fa ay xale yu jigéen yi bari ci benn bërëb wax na ko déglul prison boobu tamit bu mu fa nekk deux mois si mu mujj ma génnee foofu noonu jaay benn màggatam naar kooku laa nekkoon si këram nag ak jabaram di leen liggéeyal comme ça ménage liggéey yu daal foo xalaat rek loo xalaat si liggéey bu métti rek dañ ma koy def foofu noonu ma nekk di leen liggéeyal mais nag dugg naa fa daal am naa fa 6 mois yow xamante ne porte bi munuma laa fii la féete wala fii la féete parce que ñooñu buñ ma jaayee euh, naar boobu noonu bu ma duggee si oto bi laa gi jax gis jaamu bi ma yeewoo gis ngi tudd si benn photo yi bi ma yeewoo ma gis ma tëdd si benn photo yi ma ne waaw man xaw ma lan moo war a indi fii nii dañ maa dorege bu ñu ma jëlee xaw ma daal lan lañ ma def mais bi ma yeewoo daal gis naa ma nekk si benn foto yi ma ne ah fi mu toll nii xam naa yàlla rek moo ci des nekk naa fa 6 mois yoo xamante nag. xaw ma sax fan la porte bi féete woon. six mois yi su ma yeewoo damay minance ñoom bu ñu soxlaa ay togg tamit man dama leen toggal bu ñuy soxlaa tamit seen mu ngi femme bi tamit mu ngi yor eh, doom doom boobu tamit man maa koy téye doom bi day am lekk am lépp mais lekk doom bi man du ma ko lekk parce que su ñëwee indi lekk doom bi dafay limité lii la doom bi war a lekk ci journée bi doom bi bu ñëwee tamit day laaj doom bi est-ce que lekk bi man lekk naa si wala lekku ci

benn benn benn xaj la xaj bi ñoom ñu ngi koy woowee Tito xaj boobu noonu moo ma jàppale parce que dama toog di jooy di jooy jooy yu métti léegi heureusement ñoom jour boobu bañ lay tëj dañuy tëjaale xaj bi si biir foofu noonu léegi boo génnee si couloir bi nii boo poussé bunt bi di nga di nga jot benn couloir mais couloir boobu tamit dafa am tëjookaay mais fa lay xaj fa lay xaj bi nekk fa lañ tëj xaj bi fuñ fuñ ma tëj fu ñu tëj xaj bi bokkul mais su ma tëjee dinaa dugg si biir xaj bi. ma tijji dugg si biir xaj bi jooy taxaw ci porte bi jéem ni ma ko tijjee ba sonn taxaw ci porte bi di jooy jooy yu métti comme table à manger mu ngi nii ci boo duggee si couloir bi ndekki ñoom saa bu ñu ma tëjee pare rek seen lii bi foofu lañ kenn ndekki seen kër bi escalier ci suuf la nekk da ngay génn da ngay wàcc si suuf si laa ñëwee ci la xaj bi ñëwee di pousse table à manger bi ma ne xaj bi boo gisee muy pousse table à manger parce que maam am na lu ma jàngaloon ñàkkul lu nekk fii nii parce que nee na xaj am lu muy xencu rek boo xoolee ba ci biir boo fa gis da nga am loo gis foofu noonu ci laa fexe ba yëkkati amal ah maa ngi ba debal côté côté ma yëkkati napp ba gis fa kilo yu bëri ñu ngi tegee foofu noonu te nag du man kese sax maa nekkoon foofu ci ay jigéen si laa jëlee kele boobu noonu première porte bu ma njëkkati ji ñetti xale yu jigéen laa gis ñuy tëdd foofu noonu di nelaw xaw ma ay yee lañ xaw ma ay Nigérian xaw ay lan lañ après ma dajaat may essayé daal kele bu nekk may essayé ba yàlla jàppalee ma ma gis si benn porte ma essayé ma tëjji benn porte ma génn bu ma génnee nag miir bi nag moom mënuma laa exemple nan la toll. ci guddaay mais sama comme man instant boobu dama amoon doole te fitu góor la ma yàlla may ci laa fexe ñot di benn taabal ba nga xam ñëw na ma jël ma teg ma indiwaat benn photo teg ba nga xam su ma sotee danaa mën a dem ma sotee nag ma jàll si mbir mooy waaye bu ma daanoo te am naa problème mu loxo. laa nekk di nekk si mbedd yi di taxawaalu di puus di puus di puus di puus bu ma yeg si Niger bu ma yegg see Niger tamit ci biir Niger. ay xale yu jigéen tamit gis ma foofu pour man dañ may jàppale parce que lii bi rek moo nekkoon problème bi ndeke ñooñu tamit ay bandi lañ parce foo dem rek gis gis ay waga ma dem foofu tamit dajeek ak ay xale yu jigéen parce que bu may dugg Niger maa ngi fa dugg presque ay 3 heures du matin ma dajeek foofu noonu ay xale yu jigéen ci côté garas bi ma ne xaaral ma lal fii ci côté restaurant bi ma tëdd ma jël benn carton lal ci côté restaurant bi ma tëdd xale yu jigéen ñëw fekk ma foofu noonu bu ñu ma fekkee ma léegi looy def fii ma ne ko man dama nekk si yoon dama bëgg ñibbi suba su ma xayee damay ñibbi ñu ne fii seen territoire la soit suñu su ma bëggee ma fanaan fi li ñuy def dama koy def su nekkul loolu dañ may rey te su ma poussé fii nii danaa gis ñeneen ñu gën a sadit ñoom te loolu ñuy wax tamit dëgg la bi ma poussé dama gis ay xale góor yoo xamante ni yu bizarre yu comportement ma ñawaat seen côté ma toog parce que ñoom foofu noonu duñu tooñ kenn ku nekk am na territoire am fii ni ay xale yu góor ñoo fi nekk fii ay xale yu jigéen ñoo fi nekk ma xam ne ne li may gën a arrangé ci xale yu jigéen ñi lay doon ma dëppaat ñëwaat ci xale yu jigéen ñi toog foofu noonu benn la sama doog léegi-léegi da ngay naan da ngay tux après ñun suñ suñuy affaire la ñuy nekk soo bëggee nga bokk suñu géem soo bëggul tamit li nga liñ bëgg a tey moom dañ ko def ma xam ne ne solution amul pexe amatul ma def loolu yépp ñun am na benn ruq ba xam xale yu jigéen fa la ñuy dugg après ñu yóbbu ma si ruq boobu noonu ñii ma léegi fi mooy place bi fii mooy géem bi so bëggee man nga nek fi ni té da ngay am halis té di nga mëno a ma say fami ma tok toute la journée ma ngi foofu noonu mais xamna naa place bobu man mérito wu mako parce que sama yaay dafa am lu muy xaar ci man. parce que place bi dal carrément jigen ñi fay ñi fay fréquenter dal jigen bu baax dal dafa fréquenter ma carrément xaaral ma jéma daw xaalaat lu may def ci la dawaatoo nak nek di daw di daw ba yalla def ma dugg Bamako ba duggé duggee Bamako tamit ma fekk sama ben mag bu góor ay doomu baye lañ mom xamé wutone ma sax ak sama comportement man mako gi samé ko du ceerno mu ne ma waa man la kay ki kan la ma ne ko xadi de mune yow ta admi yep yëpp ñu lay wër ma ko man dama demone libi mune ne ma nii laa mën a daf ma gis rek joy mune ne la lo bëgg ma ko bëgg ñibi tay instant bi yoruma dërëm lima ñëwé fi yep ay tapatapal la mu yëkëti 50000 jox ma mune ma après ma passe ma dem mu yëkkati 50 bu mu joxé 50000 mille ma billet defal ma lepp tek ma ci bis après

Mhm. voilà léegi nag genre mel nii. Mhm. dañ leen di dimbale. Mhm. ba seenum xel du nekk ci def la ñu defoon. Ah. parce que ki tàmmu tukki bu fee doxul. mu làmb fa des dëgg en tout cas jàppale. def nañ suñu waru gar ban waaw keroog damaa romb rond point gis fa lu rafet. waaw. mooy genre échangeur yooyu. ñu fa ñu voilà tabax. waaw ci suuf defar nañ ko mu mel melokaan woo xamante ne. jekk na ci gis-gis. waaw fa def laa leen di wax. bu ñu wutul service sécurité bu fay taxaw. Mhm. semaine laa leen may wala un mois. Mhm. jaaykat yeeg yelwaankat yeeg sankatu saafara yi dinañ ko yàq. Mhm. dëgg la nañ ci bàyyi. barab ba rafet na ah. xale yaa ngi fay fo. jekk na mais ñaar yi moom nañ ko ko gunge nañ koy nettoyer mu set nañ koy sécuriser. gis nga lobu si nooy agresseur fa lañ jëm. ñu sankatu saafara ñan. am ñoo xam ay célébé yoon la wër. gën nga. <laughs> nga nga bu gën nga bu lobat faal bi. <laughs> jamonoy couvre feu gi. jaay nag kay billaahi. jaay nag kay damaa yéex a bi dañ ne couvre feu kenn du xolal. di du ma fan la ci digg rond point bi la toog di sang parce que. ay nen ak guro. waay yow boo boo bu bu Lobot Fall bi bañ ko inauguré une semaine après. Ah. garage la noonu doon. Lobot Fall bii nekk fi gi nga bu sa kër kër bi nu mu rafetee. yooyu yëpp yooyu ndax dëgg yàlla. na ko nit ñi sàmm c'est que population bi ñoo war a sàmm bërëb yooyu. Mm-hmm. na ko mm-hmm. bu sàmm lu baax soo ko amee. ah dañ ko war a sàmm ña ko fa def. yaay balaa heure bee jot. nañu wut ñu koy xool leen seen téléphone yi. nee naa la xalaas bi ni nga ko bindee fii la xalaas yam. Hmm. lii musuma koo gis ba ma juddoo ba léegi sa waa kër suñu raxasee seeni ganaar ganaar pour reer nga ñëw ni leen ginaar gi ci gën a rëy yónnee leen ma ko yow ñu yoo jox la ginaar gi ci gën a rëy nga tëjoog moom si meeku di jabaroo ginaar <laughs> waa kër ga filmé la man ba ma jubu ba léegi ko gis ma amuloon image duma ko gëm xoolal <laughs> ginaar ga ca gën la jël si ba set tiim ko ginaar go dee seeru di waa xoolal <laughs> xoolal vidéo bi mais ban lii loo a yónnee. mais déedéet xam nga man. waa na yoo xamante ne ji. xibaar de su ma ko waxoon ngeen ma du dëgg. Aliou Ba nga ma ko ne su nga ni ma du dëgg. waaye fan. waaye su ma ko nettalee woon rek. te ju woon yow def nga ñaari erreur. waaw. ban lu tax nga ma yónnee lii. déet su ma ko waxoon rek te man dama damay man dama lay wax ba pare jox la preuve. man su ma ko waxoon rek. ngeen nit ñi yow Yacine yow Yacine. déedéet Yacine mi ngi wax yow kii wax ju neex sax wax ju neex sax laa ilaaha illallah yaasin yaasin sa caméra yi ban moo ciy dox bii déedéet ah. yow la déedéet déet xool xam nga non non dé njaay waaw yow lii seeru ginaar ga ca gën a rëy la jël te ni waa kër gi nee na waa déglu déglu déglu waa kër gi li ñu wax maa ngi ko seen nii de jotuma koo wàcc sax ma naan ko li ma envoyé xaw ma déet waaye jëfut ndax di ma ko waaye li ma jot si moom jégut waaye xaar ba ma wàcc su ma wàccee dinaa ko xool ma tëdd nii fàtte naa ko de léegi nii damaa tëdd daal ma ne ci whatsapp bi seen ko ma ne ci ligne ma ko koptoon sama xel dem ci ma xaar ma xool ma fàttali ma bàyyi ci la xool nii daal gis ko tombeek may lii sa mm, xalaat yi ma ne ah xaar nag comme Ndoye Bane day mën a xalaat rek naa wax am na lu lii moom yaakaar naa bu ci xalaatee moom daa lu nëbboon dana feeñ ah man de mi naa man lii ku ko xam a weddi ko demal ndax foogoon naa ma lii amul ci àdduna ay ganaar yi bu jëndee ganaar yi bu jëndee ganaar yi ba pare ba jànq yi di ko raxas day xool ganaar bu ci gën a duuf mu laaj ko jànq yi ñu jox ko ko mu dugg ak moom néegam ñoom nee nañ jaaxaloon na leen mais xalaatu woon lii bu ko defee day euh, nee na démb nag daa dugg tëj delloo bunt ba bunt ba ubbeeku ñu yem ci tiit filmer ko taxaw ci fenêtre ba di ko filme su ma ko waxoon te indiwuma leen vidéo bi. duñ ko gëm ñu ni duñ ko gëm. nan la wér rek na wér rek. ci moom kay dama yàqu pare jox la ko. am xam nga dafa am xibaar yu wér. waaw wóor mais war. waaw waaw bi waru ah. ñun publié wuñu ko publiquement. xalaas ñi ma toogal ci palaato bi laa ko jox. kii lim def xalaas la de. waaw. xam nga lii kañ laa jot vendredi yàkkamti ba taxañ lënd bi. <laughs> bis bu dee sax xëy naa defi ni tey la lënd. <laughs> mais mais mais kii est-ce que ñoom seen waa kër xool nañ ko ba xam amul problème bopp wala ah gi di lekk ah wóorul de wóoru ma nag ndax ginaar gi su paree dee lañ koy delloom déet de wóor loolu moom moom àdduna mën naa dox ba nga gis ginaar nen ginaar nga fekk waaw mm. ah, wóor non lii nag ginaar gu dee la ginaar gu dee jànq ya di ko raxas ah duna jul bi déedéet ginaar gu dee la jànq ya di ko raxas day jël ba ca gën a mag te jóg moom ci biir di ko jabaro def man gis naa kuy dem ci mbaam gis naa kuy dem ci xar yu dund nag wax dëgg yàlla ay xar yu dund yu waaye ginaar gu dee ñu rey ko ba suqi ko ah mu def yaramu neen déshabillé ko. waaye man na koy dem naa waaye. kaay ñoo na mu summi ko après. mais euh, njaay ki nañ ko xool kii am na problème ah. boobu. yéen xool leen ko kenn mosu koo ci. Ah, nee naa leen fii la xalaas yam bii ñii moom moom moom kenn mosu koo gis moom kenn mosu koo gis waaw kii naan moo zo zo fili la kii kay ginaara fili la koko koko fili. mais yéen laaj ngeen ko ba xam. wala euh, poulet fili. yéen mais dem ngeen ci enquête bi laaj ko. ba xam non moom kay ñoo ci ñoo ma ma ma maa ngi ci topp mais fi mu daal amaguma ci lu leer waaye lii moom. lii lañ ci amagum mais ñu ngi xool. kii nu mu mujjee ah, mais wuy ma yoon daanu ko nag de. yoon ga déedéet yoon ma du viol du attouchement du. mais baal baal leen ma ci waxee. du viol lii du viol baal leen ma ci waxee. viol du viol Aliou ma su ma waxee ba noppi. kooku ko fii lu neex nga dem allo présidence. lii du viol. fi nii roofe kii roof nga ni ma. waaw yow ci wér na.